waaw ah, daal dina ñuy jox nag dëgg day Khalifa Sall mi lee nee nañ moo gagné ah, waaw parce que Khalifa day ba mbir ma nekkati ah ma ne leen dañ koo xañ kon ab avocat ci lu dul yoon te loolee loi bu Sénégal ci boppam kon moo ko maye la day te tuuma rek la yem ah waaw wàllum présomption d'innocence loolee tamit respecté wuñ ko waaye xam nga lan moo ca gën a garaaw ah? waaw mooy na waa CEDEAO day xam le nañu ne gis nga ate bi te dee njaxaanaay amu ca de ba tam jàpp ne ne gis nga Khalifa Sall day waaw keroog ba nga xamante ni nag maanaam kon ña ngay joxe résultat yi day élection député yi constitutionnel kon di ko def waaw ak bis bi nga xam ne nag ca lañ doon laalli kon malaanu kirangeem gi immunité parlementaire ba loolee tamit mbirum jaay doole dëgg ca sax arbitraire waa CEDEAO ko ga ci tribune de bu rëy waaye tamit bi nga xam ne kon moom la kilifay Sénégal yi kon tapale ci dossier Khalifa Babacar Sall bi ëpp na ba tax kon war nañ koo fay lu tollu fanweer ak juróom ci ay millions laa wax 35 millions moom ne borom di justiciable a li waa CEDEAO wax ah, ma ne la nguuru Sénégal gi nañ wàccoog moom waaye na tribunal bi wàccoog moom ci coowal caisse d'avance bi waa réew mi bu Idrissa Seck ci l'observateur day waaw ñoom daal jàpp nañ ne Khalifa Babacar Sall mi la dañ koo war a ci kaso bi wax immédiatement waaw waaw moom ñooma àndal professeur Issa Sall ci yéene a ci kaso gi daaneel Khalifa Sall kay dañ koo war a génnee automatiquement ci biir kaso bi keroog ba mu nekkee député nag dañ koo waroon a faalewu la dara dogalu réew mi ah maa la ko wax moo di gàjëga day ci la soleil yéeni kaay daal dina expliqué nag lan moo tax ba daan bi ñu daan Xalifa la ci kaso bi day amul dara lu cay nuroo mbirum jaay doole ah gàjëga ne waaw ay avocat nguur gi nag li ñuy naxaroo daal mooy jaxase bi nga xam ne kon ñu ngi jaxase xelu doomu aadama fi mu nii amal gambilee njabootu Idrissa Seck kii ci yéeni kaay Futurs Médias waaw daal dina ñuy naxaroo nag bu baax a baax taxawaayu ministre de la justice mi la li Ismaïla Madior Fall Madior day waaw daa xam leen ne gis nga waa CEDEAO mënuñu dara ci dogal bi nga xam kon jël nañu ko réew mi quotidien ne Sénégal kay waaw CEDEAO gaa ngay rayante de yéene ma jama jàngi ne Moustapha Cissé Lo waaw nee na day yóbbu Farba Ngom te la la nañ ne fa la ñuy mujj ah. maa wax li lay parce day waaw danee Moustapha écrit lu tolloo fukki nag ak ñaar daal di jox Moustapha Cissé Lo mi Lo ne c'est ah. ma mës a ay enveloppe na wax ñaata la Moustapha maa ngi xaar sama convocation ëpp la Farba Ngom ne day fa mu nekkoon dugg fa bu sewul un eh, yotaa laa la wax ndaxte nee na Moustapha Cissé Lo de saay bu attaqué des présidents wala waa APR a eh, ba daal di dal ci kawam kon daal di koy attaqué yaay dala ci APR farata gaa ngi fene de le quotidien ne kaa ne njabootu ñi nga xam ne nag maanaam ñoom la jéegi li song ca ndar géegee waa xaar yàlla maître Mame Adama Gueye waaw daal dinay sax ci nguur gi mu indi fa ab saafara moo gën farata la yi taw yu njëkk askan a ñeenti junni la ay ay la la quatre mille waaw ci ay yi premier yéene kaay ne te moo ne nguur gi day ak pharmacie nationale d'approvisionnement waaw ña nga yor ne nag ñi nga xam ne kon ñoo leen di jox ay garab ay équipement ay matériels médicaux loo fu juróom fukki milliards cinquante milliards laa la wax <laughs> maa la wax lii de te fournisseurs yi ne jàpp nañ loolee kon mi leen di rey banque yaa ngi leen topp ak seeni partenaire yéene feebar bi waaw nag ak waa pharmacie nationale day da ngay défendre de nee nañu nguur gi ci boppam kon moo leen yoreel xaalis ndaxte ca temps yee directrice su pharmacie nationale docteur Anès Seck Ndiaye waaw nee na nguur gi ci boppam kon yoreel na leen lu tolloo fukki milliards ak juróom-ñaar couverture maladie universelle ba mu dikkeeg léegi hôpitaux yeeg waa pharmacie nationale ngay bëgg a dee la ko si yéene kaay ne waa douane mii nga xam ne nag maanaam ma waaye moom Auchan day waaw ma ngay setal boppam de ci produit yi nga xam ne kon dañ ne dafa périmé commerçant ndaw yi nga xam ne boo sàgganee mu rey leen ba ci wàllu impôt bi waaw Laurent Leclerc day mooy directeur ba nee na na nangu rek nangu rek wu jëgi parce que sénégalais itam dofuñ daal taw bu mitti bi nga xam ne moo am ca jolof gae musiba mbaa ba kumba juróom benn junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent six mille trois cent cinquante mooy yéene kaay dem naa ca football ba tribune sport nañu Russie a Croatie day qualifié nañu quart de finale France day éliminé na Argentine ca jamono jooje fédération sénégalaise bu football waaw ña kalaame ca FIFA de nee nañu carton jaune xaw yi éliminé Sénégal Japon ci boppam bi football ak Pologne benn instant football tuloo ñang ñang ñang patiti patata yéene kaay gi ne délégation Sénégal ba day ba ñuy ñibbisi waaw dañoo toogoon di xaar kon avion dara nekk fa di làmbatoo ko taf yëngal ñoom ñu jël seeni bagage ne mes dem ñibbi l'observateur ne kilifay Sénégal yi ne dañ leen a génnee nag ca biti ak seeni bagage ci hôtel ba waaw weddi nañ ko de nee nañ samedi la mbir mi waroon a jeex ñu war a fay ci xaalis si Russie te la ñu yor une heure de temps ñu ne fay lijjanti loolu la gannaaw ko la ñëpp duggaat seeni néeg <laughs> alaaji gis nga ko xeeb ay détail mu lakk sa daay éliminer le premier tour boo paree ma ne la alaaji tëjal